wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi tàmbalee suñu nuyoo ci a Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan suñu boroom yokk koo tawféexal yokk koo dëgëral ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi di teg nuyoo bi ci loxoy sunu wayjur yi fi nekk suñuy kilifa seen jataay bi rëy na ci ñun lool ndax kóoluteef ak doyloo ak yittewoo sëriñ bi moo leen yëkkati moo leen tax a def déplacement bi lii ñu woote nag dama bëgg a leeral lu tax nu woote ko xam ngeen ne réewum Sénégal ci tubaab dañ naan exception sénégalaise maanaam soo xoolee ci Afrique réew la moo xam ne wuute na lool ak réew yu baree baree bari ci Afrique ndax réew yu baree bari ci Afrique dañuy xeexoo dañuy xiiroo dañuy ŋaayoo ay dafay tàkk te li ko waral lu ci bari ci mbiri waaso la mbiri pas-pas ak mbiri xeet moo koy waral Sénégal nag ñiy xeltu ñëpp dañoo jàpp ne Sénégal mucc na ci loolu te ku jàngat danga gis ne li ko waral mooy ñoo ngi jóge ci màggal jëm ci gàmmu xam ngeen ne kilifay diine yépp ci réew mi su xew-xew yooyu amee kër goo ci dem xeeti senegal yépp da leen fu fekk muy wolof muy séeréer muy joolaa muy xeet yu mu mën a doon ñu am lu leen boole mu di pas-pas bëgg sëriñ Touba wala bëgg seenub sëriñ tax ñuy fàtte loolu leen wutale muy ay xeet ak i waasoog yu demee noonu jàmm jooju senegal amee ci loolu nag kilifa diine yi tabax ko ba Sénégal agsi fi mu agsi nekk exception ci wàllu jàmm ci wàllu démocratie ak ci wàllu jàmmoo ak ci wàllu xajoo nit ñi ami wuute ci diine ci tariixa waaye téewul kenn ku ne xajoo sa moroom loolu magi diine yi ñoo ko fi liggéeyoon kilifa diine yi ñoo ko fi liggéey këri diine yi ñoo ko fi liggéey tarixa yi ñoo ko fi liggéey du état du colonisation bi ñu jógee du état ab poste indépendance du kenn ku tabax loolu Sénégal am ku dul kilifa diine yi ku dul këri diine yi loolu Sénégal am nag la jenn jëmm muy Omar Diagne jóg ne dafee war a jeex taxaw na ne balaa yàgg tarixa dootu am Sénégal kon mu ngi ci xeex tarixa ba tarixa jóge Sénégal ndax ku mel noonu bëgg na Sénégal koo xam ne li Sénégal am ci jàmm ak tawféex li ko ko may nee na loolu na fi jóge wax na itam ci waxam ne xolam sëñ Baye Gueye Sylla mi ngi koy fàttali léegi xolam Cheikhul Khadim nekku ci du ko def ci xolam bari na ñoo xam ne Cheikhul Khadim nekkul ci seen xol xam nañ ko am na ñoo xam ne ci bind ci article waaye ku fés ci vidéo fang di wax ne sëriñ tuubaa nekkul ci sama xol moom bu ñu koy soog a gis ci ab sénégalais lii nag jataay bii ñu woote li ko waral mooy naam ñu baree baree bari ñu ngi def ay vidéo di def ay réaction di wax loolu lu baax la ndax kenn ku ne am nga noo mën a songe ci xeex bi kii ñuy xeexal moom nag du jëmmam moo ñu tax a jóg waaye li muy représenté xalaat bi muy représenté pas-pas bi muy représenté ak gisin bi muy représenté am na ñu naan jërutoon ñuy def lu mel nii ndax wax ji yi muy wax lu yàgg la am na ñu naan biñ ko falee rek ci la waroon a jóg waaye dañoo war a xam ne li waral lii ñu def ko da bokk waxam yi mi ngi soog di tasaaroo nii mu tasaaroo ci fan yi màggal bari na ci jataay bii ak ci senegale yi ñoo xam ne xëy na am na lenn lu daan dégg ci ay waxam waaye néew na nga gis koo xam ne lim daan wax lépp dégg déglu nga ko wala déggoon nga ko wala xamoon nga ko dafa mel ne jamono yi màggal gii ci la ko suñ borom weer ba mu ne fàng bi ñépp xam taxawaayam ak li mu daan wax ak lépp lim daan wax nit ñëpp ñu sulli ko ba ñëpp teg ci seen bët loolu nag su amee te itam ba muy daan wax wax ji suñ nee dañoo waroon a jóg ca booba booba benn waay rekk la woon waaye léegi dafa am ay responsabilité ci état du Sénégal responsabilité yi mu am ci état du Sénégal da koo jox beneen dayo mu mel ne kon waxam yii feeñ ñu di ko dégg di feeñal mbañeel di feeñal ak coxor di feeñal bañ a def ci xolom Cheikhul Khadim waxam yii feeñ gii mu feeñ ba tasaaroo ba ñëpp jot ci weeru dafa mel ne mënu doon a ñàkk ñu def jataay yu mel nii dénoncé kii mu doon ak li muy représenté ndax su weesoo loolu itam xam ngeen ne wax ju yàgg su dee wax ju baaxul la jëf ju yàgg su dee jëf ju baaxul la lu mu yàgg-yàgg su ci ab su ci suñ borom ubbee sa xol ak sa xel war nga cee taxaw taxawaay ba nga ca war a am kon du lay ci ne lim daan wax wax ju yàgg la te sax nag ay gis ci ginnaaw rek yokk na ci xar mi kawar ndax def na conférence boo xam ne ŋàññi ci mbindi mag ñi ŋàññi ci Sëriñ Tuubaa ci mbindam doyadal ko tuutal ko kon kooka la mu daan wax ñu ne wax ju yàgg la ca la nekk ba léegi te loolu firnde la ci kon loolu jar naa tax ñu def jataay yu mel nii jataay bi nag xam ngeen ne li tax ñu koy defit mooy li muy représenté doon wax li mu daan wax ñu teg ko fii ñu ko teg day mel ne dafa am promotion ci li mu daan wax ak di ko jëf muy xeex tarixa ya xeex kilifa diine yi te loolu bunt la boo xam ne su ubbeekoo ñeneen ñu ay kemam ñu mel ne moom yu baree baree bari danañ jaar ci bunt boobu ci doyadal sëriñ si doyadal seen liggéey xeex tarixa yi xeex kilifa diine yi bunt la boo xam ne suñu ko tëjul ñu baree baree baree bari ñu ngi ci ginnaaw làqatu di xaar lool lii mu def jikko ba ñoom it ñu jaar ci bunt boobu kon nag bunt bu mata gaaw a tëj la lii ñuy def nag du parparloo ci politique du parparloo ci bëgg lu neex ma sàmba wala lu naqari ma demba li ñuy def daal mooy liggéeyal sëriñ Touba sàkku lu ko neex sàkku mbégam ci xeexal ko taxaw ci li mu fi bàyyi ci ndono suñu kem kàttan ñu di ko sàmm ndax ñi àndoon ak sëriñ bi di mag ñi kenn yabuñu kenn yabu leen woon ab murit daana nekk ci dëkk historien yi duñ ma bàyyi ma wax lu dul noonu ab murit daana nekk moom tundum ci dëkk ñu di ko wax lu ne mu di ko dékku di xeex di xeex di xeex ba imposé fa yoonu sëriñ Touba yoon wi looloo ko tasaare ci àdduna bi yëpp looloo ko tasaare ci réew mi kon nag fulla jooju mag ñi amoon doon lim bu néew ñu dema dem bay wax ay millions fulla jooju waruñ ñu koo ëppale waruñoo ëpp pas-pas waruñoo ëpp bëgg-bëgg ci liggéeyal Serigne Touba ak taxawal ko ak ak xeexal te liggéeyal Serigne Touba taxawal ko xeexal ko mooy xeexal sunu borom mooy xeexal sang bu bi mustafa sallallahu alayhi wa waaye mooy xeexal réewum Sénégal yitam ndax mooy xeexal réewum Sénégal yitam ndax njariñul Sénégal mi ngi ci cohésion bi nit ñi am. ñu mën koo sàmm jaamu ji nit ñi am ñu mën koo sàmm xajoo gi nit ñi am malgré seeni différence ñu mën koo sàmm te loolu mooy tax ñu mën a dëgmal développement endogène sukkandiku ci suñu bopp ni ñu ko Sëriñ Tuubaa jàngale woon ba mën a jëm ci kanam kon dañuy foog xëy na rafet njort dogal ngànt ñi ko tabbu ci ne xëy na bañ koy tabbu xamuñ woon la mu daan wax xamuñ woon pas-pasam xamuñ woon lam daan yëf loolu mën nañ cee dog ngaan dogal ngànt waaye nag léegi xam nañ xam nañ li daan wax xam nañ ay position xam nañ xalaatam xam nañ li mu yëngal mooy xolu jullit ñi xoli taalibe yi kon léegi umpuleetuñ ci dara nañu jël seeni responsabilité lañuy def nag ñun duñu leen ko wax waaye ñoom daal dañu jël seeni responsabilité en tout connaissance de cause ñoo ngi sant bokk taalibe yëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu